Thank you. Adama Adama yaa ngi jël. xoolal Malika. lamb samp ci tànk bi. lii xawma garab la. waaye liy meññ ci garab gi laa xamul lan la. ñu ngi jox ay bal galaaj ma ngay sot. ñoo ko taxawal nii. Fils de Balla taxaw na. général Malika taxaw na. Fils Fils bari na Fils de samp Béjjën moom it ñoom ñaar ku ne am na lu mu samp kii samp na garab samp Béjjën ñoom ñaar a ngi noonu ñu ngi leen di présenté. doole day ñam doole ay Grand Tamba ay général bu Malick général a ngi noonu yëkkati na loxoom Fils de Balla a ngi noonu yëkkati na loxoom Adama ñaari mbër yaa ngi wax ak ñoom arbitre bi wax li règlement bi nangu ak li règlement bi bañ dox ci diggante général bu Malika ak Fils de Balla journée bi ñu doon xaar adduna bépp di ko xaar amateur lamb yëpp di ko xaar bis boo ñëw na loo bañ mu yegg si bul ko jàppal bis loo bañ mu yegg si bul ko appal bis loo bañ mu yegg si bul ko jox heure ak waxtu ak fa muy amee moo tax ñoom ñaari mbëri avertissement pour général Malika ci wàllu débat déet benn avertissement fils de Balla ci wàllu débat benn ñoom ñaar ku ci nekk am na benn arbitre baa ngi wax ak ñoom ñaar arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 24 octobre 2021 fii ci arène stadium Iba Mar Assane Ndiaye Baol production général Malika di joor Fils de Balla féetale càmmoñ arbitre bi sifflé na Ousseyn Diop waaye jili combat bi combat bu neex la loo ca mën a gis mooy kii di Fils de Balla day xeexal général Malika waaye général bi xeex bi général Malika xeex bi du avantage su doon naa maay moom damay cokkaas daw jël seen tànk général kii Fils de Balla bi général Malika ne xeexal ki nga xam ne mooy Fils de Balla moom looloo avantage waaye saa bu bëree kii Malika dina fekk général Malika ci mëninam te loolu arrangé wu Fils de Balla daw na jëli général a ay benn ci suuf général a ngi doon de Balla lu mu def Fils de Balla fàqan na na ma ngay dóor Fils de Balla ngay dóor général def na trois appuis luy xew général def na trois appuis luy xew général def na trois appuis ma ngay dóor Fils de war na ko ndomba général fañ koy yegg fañ koy na Fils de Balla a dóor lamb ngi na Fils de Balla a dóor est-ce que général dina ci génn daa nar a Amara Diop fam ko yegg so ndax kuy dalul fi mu war a dal lii penalty la bu dee football ñu ne la da la dóoram loolu mooy erreur est ci génne waaye doo na ànd ak calcul ci lamb fi sa la concentré woo fi sa fi sa la ngi naan bañ na ba bañ na ragal na général Diop général bu ci génne ma de Balla général day rëcc daanu na Fils de Balla daan na général Fils de Balla daan na général Malika Fils de Balla daan na ko Fils de Balla daan na général Fils de Balla daan na général Fils de Balla daan na général Fils de Balla daan na ko Fils de Balla daan na général Malika Hey!